ngi massaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndaw yi nga xamante ni yoon teg na leen loxo ci anam bu jaarul yoon 19 ndaw yi nga xamante ni yoon teg na leen loxo gannaaw bi ñu bi ñu ay torture de la part de forces de l'ordre masawu leen masawu seeni wayjur aussi bien ñi nga xamante ñu ngi fii à waaye aussi aussi bien ñi nga xamante ni tegal nañ loxo au niveau de Ziguinchor bu ma jógee ci loolu may wax rek que ni dafa am benn disposition constitutionnelle boo xamante ni dafay prôner li ñuy wax devant l'oppression la résistance est un droit devant l'oppression la résistance est un lii suñu charte ndaw yu réew moom moo ko wax te yaakaar naa ni kabal bi nga xamante ni le président Macky Sall a njëñam enclenché nañ ko jëmee ko ci Pastef plus particulièrement jëmale ko ci le président Ousmane Sonko c'est une cabale qui ne fait que commencer qui n'a pas encore di son dernier moom ñuy wax ni gannaaw bi nga xamante ni sénégalais lambda biy doog a juddu gën a ndaw ci sénégalais yi sax boo ko yeewee expliqué ko li nga xamante ni moom la ñuy tumal Ousmane Sonko mu xamal la ni la d'après les faits li ngay wax sa vite tegul fenn. maintenant li nga xamante ni nag moom lañ jotee mu nekk seule arme bi nga xamante ni moom la Macky Sall dese ak ay njoñam mooy lan fexe ba tous les responsables de Pastef képp koo xamante ni. cu es capable de mener la barque après Sonko ñu ne rab tëj la ci kaso bi pour que après ñu mën a def seen sale besogne sans tambour ni trompette waaye ñu bëgg a xamal askanu Sénégal le monde entier que ni le président Ousmane Sonko du Karim Wade le président Ousmane Sonko du xalifa Sall le projet de Pastef les Patriotes n'est pour mourir à la minute qui suit ñoo leen xamal ne le président Ousmane Sonko voire tous les militants de PASTEF ne sont pas pour finir comme Thomas Sankara ne sont pas pour finir comme Mamadou Dia ne sont pas pour finir comme Cheikh Anta Diop juste pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que ni le projet de PASTEF les patriotes tëj Ousmane Sonko tëj sans jeunes arrêté wu ko arrêté wu ko intimidation bi ñu jógtee ça fait une semaine maintenant le frère Abbas Fall coordonnateur de Pastef Dakar ñu ngi ko teg loxo la femme de biram Souleye Diop secrétaire executif de Pastef les Patriotes ñu ngi ko teg loxo Fatima un membre de FRAPP une femme engagée patriote ñu ngi ko teg loxo le frère Dayirou Thiam responsable de PASTEF à Mbao membre du mouvement des cadres de PASTEF ñu ngi ko teg loxo tey tey moo ci mujj un membre de PASTEF Dakar un membre de FRAPP dem préfecture déposer demande d'autorisation pour une manifestation pare jàkkaarloo ak presse bi lancer seen message ñu teg leen loxo barki démb la coordination départementale de Pastef Pikine di amal conférence de presse bu mel nii police ñëw wàcc si fa tas ndaje mi ne dañoo recevoir ay ordre yu jóge ci kaw cette intimidation yëngaluñu cette intimidation ne payera pas cette intimidation yàq la perte temps la mais ça ne nous arrêtera démb le président Ousmane Sonko comme ni mu demee woon hôpital CTO seeti ji ay militants yoo xamante ni dañoo gaañu woon ci affrontement yi médecins yi vigiles yi tout le corps de la santé yi nekkoon CTO génn mbabooru topp ko magnifier ko seen soutien magnifier fekku seen contentement magnifier ko ànd gi ñu ànd ak moom. noonu la même président Ousmane Sonko démb demee à l'université seeti ji benn militant boo xamante ne dafa am ay gaañu-gaañu suite à ces affronts du lundi tous les étudiants je dis bien quasiment toute l'université génn mbabooru magnifier seen soutien magnifier seen engagement réitéré seen jàppale gi ñuy jàppale président Ousmane Sonko à l'université suite à cela à notre grande surprise tey dañoo xëy gis ne les militants de l'APR au niveau de l'université dañoo def mbaboor dem dal ci ndaw yooyu ñuy wax les ndaw yu Pastef te Ousmane Sonko demoon seeta leen ak seen i jaas yi ak seen i gàn seen gànnaay ne dañuy dal seen kaw dañu ni faat ñu bëgg leen tontu tontu bu simple ñoom ndaw yu APR yooyu nekk université ñu bëgg leen tontu tontu bu simple bu fekkente ni bu fekkente ni acte bi nga xamante ni moom le président Ousmane sonkoo teg démb à l'université daf leen a metti à sa point la réponse elle est simple ñun ñoo leen koy jox tey réponse bi mooy il n'ont qu'à demander à Macky Sall président de l'APR de surcroît président de la République mu jël benn oto comme ni ko sonkoo defee woon jël ñaari garde comme ni ko sonkoo defee woon dem université seeti leen ñoom te bu demee na bàyyi ndaw yi étudiants yëpp ñu manifester seen contentement ci moom bu mu téye kenn bu mu jàpp kenn voilà le seul acte le seul moyen légal bi nga xamante ni ndaw yi APR yi à université bu ñu ko defee dinañ tontu Ousmane Sonko leneen lu ñu def defuñu dëgg ñu yoon te leneen lu ñu def nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que ça passera pas acte bu ñu teg benn mën nañoo teg fukk. dafa fekk ni nag ñun ñëpp ay ndaw lañu le président Ousmane Sonko bu ko askan wi jëlee def ko seen xol bëggal ko seen bopp policier euh, euh, euh, nit ku yëngu ci sante mécanicien képp koo jël toutes les sensibilités réunies au Sénégal ñëpp bu ñu àndee bëggandoo le président Ousmane Sonko loolu yàlla la. c'est parce que les gens s'identifient au projet de Pastef les Patriotes qui est un projet bu dara dara dul arrêté Macky Sall ay ñoñam France quiconque amul ku ko mën a téye boobu projet kon bu fekkante ni ces étudiants là acte bi ñu teg démb da leen a metti ils n'ont qu'à demander au président Macky Sall de faire pareil et de laisser les étudiants s'exprimer comme l'a fait le président Ousmane Sonko. ñuy lancer un appel solennel un appel très très solennel pas uniquement au jeunes de PASTEF mais à toute la population sénégalaise aussi bien au niveau national aussi bien au niveau de la képp koo xamante ni tu es épris justice képp koo xamante ni démocratie Sénégal ñor na la képp koo xamante ni le devenir u ñor na la képp koo xamante ni tu ne plus euh, euh, tu, tu n'es pas prêt pour accepter que des médiocres continuent à nous diriger de façon médiocre waxuma ñu ngi lay oo ci combat mais ñu ngi lay oo à la résistance Parce que là, nous résistons. Nous résistons devant cette oppression manifeste, devant cette oppression qui ne dit pas son nom, par le régime d'en face ci ndaw yi nga xamante ne ñoo ndaw yi Pastef jë ne ci régime bi nga xamante ni euh, mu ngi koy def ci kaw le président Ousmane Sonko. on n'est pas là pour parler de viol parce que comme je l'ai dit cette affaire xale bi doog a juddu sax xam na ni. c'est euh, du n'importe quoi ngeen jégal ma ci kàddu yi ñi o les frères de l'opposition frères avec F majuscule ci cette résistance bi nga xamante ni Pastef mu ngi koy mëne di lu wax ne tey ñun la comme ni ko la frère waxee tout à l'heure suba keneen la et que le président Macky ci li nga xamante ni moom la nekk musu see wàcc dafa fekk ni tey dafa laal laa laake mais musul wàcc ci yoonam yoonam moo nekkoon bi muy doog a falu bi muy doog a toog lan moo nekkoon yoonam réduire l'opposition à sa plus simple expression qui est un calendrier programme qu'il déroule benn par benn pas à pas la seule différence est que cette fois-ci dafa laal laa laake cette fois-ci il a touché l'intouchable pas intouchable si jëmm ci ci jëmm déedéet mais l'intouchable parce que c'est quelqu'un qui porte l'espoir de tout un pays, l'espoir de toute une nation, l'espoir de toute une jeunesse. donc mais daaneel di wax ni encore une fois de plus cette résistance tant que l'oppression existera la résistance existera